Ousmane Sonko nañ ko tëj. Ah, maa ko wax. Sénégal de ba Gambie ne wooyi. <laughs> ba yuuxoo woon ne wooyi. waaw. Sénégal dañoo ñëwoon. non non ECOWAS ñoo ñëwoon. dafa am ñoo xam ne Yaya Jammeh lañ bëgg mu am ñoo xam ne Barrow lañ bëgg. mu am ñoo xam ne Macky lañ àndal mu am ñoo xam ne Sonko lañ bëgg noonu la amee tamit ñoo xamante ne bëgguñ Macky bëgguñ Sonko waaye fu yoon féetee. man ma cuus ma man keneen laa bëgg jëlal ma su acceptal ma ma acceptal la. bëri na si réew mi ak bitim réew ñoo xam ne ñu ngi ñaawlu sa kàddu yooyu. li ma wax ba ëllëg si suba moom laay wax Ousmane Sonko nañ ko tëj. yaa ko wax. maa ko wax. xaalem eh, xaalem xaalem xaalem kaa am na. kaa bu mag sax bonjour les célibataires. maax la ana dossier yi. dossier yaa ngoog. kan moo amee dossier yi. moo amee dossier yi. balaa ñu dem si dossier yi. guys xar seer na de. dana xool dossier yi te ñëwaat. am nga lu tax ma wax ko. déedéet wax ma. benn individual mënuloo lembe dikk bi yëpp. both sides not the president or the opposition nobody is above the law. te su fekkee ne George moo dem court. a mm. court of law. Mm. moo dem mu ne kii lii la def jàpp nañ ko guilty na dañ koo sentence. Mm. nañ ko tëj. léegi su nekkee George bi nekkul di doxal yoon parce que first time dem woon nañ moom dañ ko toppee réew ñu dem ba si kanam ñu ne noo réewut. corruption de jeunesse lañ ko toppee ah Fatou maa yaa ngi dégg tam ne lay yëkk si internet bi. maa ah. faalewul lu nit di wax. faalewuloo soo la jotee ak Fatou Touré. du ma wax. laaj ma leneen bi te ma jóg ma. ok bu ak Hadi Faye. lu tax laaj ma leneen bi te ma jóg. yow moom sa live nii rek. man damaa def lu ma bëgg def ku ma bëgg a votal laay votal ku ma bëgg a laay bu àndal. léegi lu nit yi di wax sa diggante ak gars dëgg la wala. ndax loolu fenn la musta am. loo am pour wax si nit yi li ñu dee wax si sa diggante ak gars yi. ku nekk lu la neex nga xalaat ko it is your problem. sa intérêt rek nga toppa sa soxla rek nga xam. Hmm. luñ bëgg ma xam soxla jàmbur. xanaa ma laaj gaay ñu def seen xalaat si comment section bi nañ continuer waxtaan nit loo am am doole na nit mënut a ëppale nguur doole. nguur tamit nu mu am am am doole mënut a am doole ba ëppale waat di ka am doole. comme ni ko kàngam yu magee daan waxee rek. power to the people. dëkk bi nag am fit gis nga boo yóbbu dëkk. Hmm. wala boo nekkee nit da ngay am fit. Hmm. wante yaa ngay jaawale am fit ak tooñ xam nga la mooy am fit sa waa dëkk fal la ngay xeexal gay national and international. tooñ nag mooy sa waa dëkk fal la teg la foofu di la fay seen xaalis nga siy dundee ba pare doo leen xeexal international ñoo national ba pare di lor ni di di leen tëj di leen rey loolu mooy tooñ. faatu network. ci sa xel. so bëggee da nga ñëw nga wax ak man nit la man nak duma nit rap la té dafa am lu mëna bëgg wax. man buri buuri Banjul may buri Gambia. non non président président bi ñëpp sa waxtaan maanaam Anta Fatou ñëw waxtaan. please. man buri buuri Banjul maay buri Gambia. booy wax leen si président bi. man buri buuri Banjul may buri Gambia. suma broda duma di bëgg dugg ci affaire am trop. okay guys loolu si ñu toog di mën a